yonen la sanan min kaduna wa sanaaw innama masulu siwatika linaasi yeneen samaam kama masala nujuumu almaaw anta misbaax kullu fatlin ramaatas duru ilaa andayikal adwaa لك ذات العلوم من عالم الغيب يلين منها لآدم الأسماء لم تزل في دمائر الكون تختار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi yëkkatiwaat kaddu nuyoo ak kaddu ziar yu am fu mu tàmbali te amul fu mu yem di ko jëmale ci sunu baay ji ñu fi fekk sunu sëriñ sunu xalifa xalif général alaaji Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye ah, di ko jottali nuyoo ak ziara réew mi yëpp ci bés bii ñu dégmal di bésu fàttaliku jàmbaru lislaam ci mag ga xam ni moo woote woon fii ngir sunu borom wàcce yërmande ci njaboot gi ci askan wi woote it ngir waaso ba a nekk luy xàjjale jullit yi kon bu ñu yàlla baaxee ba ñu ñëwaat ci appelu ren bi fekk si ko fii dinañu sant sunu borom ci lu jiitu jullit ci sang bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñëwaat du ñaan yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Baye Abdoulaye ñëwaat jox ko ndokkale réew mi yépp nag ci xew-xew bu mag bi di xew-xewu lislaam nga xam ni romb na ay frontière senegal Sénégal su ñu Lamine yow ak euh, say rakk njaboot gi fi teew yépp ma ràññee si sunu wëllëre sunu xarit sëñ Seydina maam Abdoulaye ak suñu rakk suñu xarit sëñ Cheikh Mbacke Laye ak mboolem njaboot gi fi teew ak taalibe yi di leen ndokkale itam te di leen jox nuyoo yu gën a tedd ngeen jottali ñu ko xalif bi fi moom laa jóge léegi di ko won rekk taxawaay bi nga xam ni état bi ñu ngi koy taxaw communauté bi ndax communauté bi yàlla moo def mu juddoo fii ci Cap Vert waaye yaakaar naa ne tey taxawaayam romb na sax biir Sénégal yëpp euh, ñëw naa itam ànd ak euh, ci li nu yàlla may ñu amoon ay sumb ñu sumboon yàlla may ñu ñu mottali ko ak jàmm loolu yëpp ci sant yàlla la bokk loolu bokk na ci résidence su bi nga xam ni defoon nañ ci ay liggéey jagleel ko Khalife de Layène yàlla def liggéey boobu mat na ba war nañ mën a jébbale caabi ji caabi yi ak lépp loo xam ni mooy màndargaal euh, dëkkuwaay boobu ñëwaat naa itam daaw jéeg daf ma fi joxoon ab soxla ci dëkk bu ñu bu Malika te ñëpp xam na itam euh, laayeen am nañu fa lool taxawaay ndax njaboot gi loolu it jébbal naa ko léegi kayit bi màndargaal euh, dagg bañ fa dagg muy lu ëpp quarante cinq hectares jox ko communauté laayeen pour ñu mën di ko euh, en tout si jëfandikoo ci na mu waree Euh, loolu yëpp day wane rek sama yitte ak sama yéene ci njabootu diine yépp ci Sénégal mooy di leen fekk si si loo xam ne njëriñu askan wi lay doon di leen fekk si si loo xam ne dana leen permettre seen diine ñu gën di ko doxal ci anam yu gën a woyof loolu mooy sama gis-gis ci ni état bi wara a taxawee ci kanamu diine ji fii nag am nañu yaakaar ni lu dul yàlla tam boo fi ñëwee di ko fi daj kon nag ñu ñaan yàlla si barke borom bés bi ci barke ay ñu fi wàcce ak jaamu yàlla bu ñu fi jaamu yàlla yàlla wàcce jàmm ci senegal wàccee fi xéewal da xam ne réew mi jàmm rek ah, moo fi moo fi nekk loolu bokk na sëriñ bi ci liñ leen di sàkku si ñaan ah, bu loolu weesoo itam bëgg nañu lépp lu ñu yëkkati yàlla may ñu ci ndam loolu tam lu am solo la ci yéene bi ñu am ci réew mi te am naa yaakaar ne war nañ ko fi mën a ñaan ñu may ñu ko fi kon euh, li ci des nag mooy fu ñu toll rek ci réew mi war nañuy waxtaan ak nit ñi di delloo ci xel yi te xam ni am réew moom ñëpp mënuñu nangu lépp bokk nangu lépp waaye lépp lu ñu bokkul nangu it war nañ ko mën a waxtaanee ci njëkk ak teraanga ci dal ak yar ba nga xam ni xëy na solution mën na am bu amul it au moins nit ñi mën nañu waxtaan buñ juboo xayroon buñ juboowul itam ñu teg mbir yi fi ko yoon wax ak fi ko démocratie wax loolu dama koy wax rek pour mën a xamante réew mi ne euh, lépp lu ma yëkkati en tant que njiitu réew amu ci lenn loo xam ne euh, ab parparloo moo ko lal lu dul ni démocratie war a doxee bu ñu gisee lu koy gàllankoor walla nara a nekk ab gàkk-gàkk ñu teel ko fànq ba nga xam ne duñ fa yegg si ak ay jafe-jafe kon loolu bu fekkent ne ñëpp ñoo bokk yéene bi si liy jëmale senegal kanam foog naa ne réeroo mën na bañ a am kon en tout cas li li taxawaayu président la république daal ci Sénégal mooy lépp lu état bi doxal bu amee ñoo xam ne gisewuñu ko noonu nañ ko wax te nañ ko war a waxee ak fañ ko war a waxee ñu xool li ci saafara bi mën a am ñu def ko li nga xam ne nag mënul am li tubaab bi wax à l'impossible nul n'est tenu maanaam au moins dañ déglu nit ñi xool li ñu atteindre si lañuy laaj ñu jox leen ko li ci des yoonu démocratie la ak lépp luy jëmale réew mi kanam ci tànk yooyu rekk lañu taxaw bëgg nañu nag euh, ngeen dolli ñaan réew mi te it Sénégal ku ko xam war na xam ne jàmm rek a fi am ndax ñaan yi ko jiit ñaan yi fi jiitu ndax Sénégal gënul yeneen réew yi dara waaye nag yàlla mu ngi fi def sutura sutura boobu nag am na lu ko waral te yaakaar naa ne incha allah dina fi sax moo tax ku ne war di dox. ci luy yokk jàmm ci réew mi ak luy yokk sutura parce que si la njëriñu ñëpp nekk ci la njëriñu réew mi ne li ci des nag moom dañ koy bàyyi rek ci loxo yàlla waaye daal maa ngi feddali xalif bi sunu taxawaay ci wetam ko feddali cofeel gi nga xam ne am nañ ko en tant que wayjur tant que xalifa di ko waxit lépp lu communauté bi solowoo su ma ko yëgee incha allah daañ ci def lépp luy suñu kem kàttan ngir ngeen mën ci am ay satisfaction kon ginnaaw loolu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla may ñu ñu fekkewaat waxtu wi déwén yàlla yokk fi jàmm ak sutura allahumma salli ala sayyidina si wa sallam nun nag comme ni ma la waxee woon fii moo ci nekk monsieur le président danoo ànd ak yow du di ci saal bi ñu toog di wax ñun duñu doxe noonu lamp yi tàkk nuy wax ci bitee dañuy mën a wax man daal manuma d'accord man ab Ablaye Diaw may taaw li ñuy defal nit sama waajur defal na ma ko nag yow mu ma wàññee sama baaraam yaa fi def lii yaa fi def lii te muy dëgg nag yaa fi def ñu xëy naan laan déedéet bu ko wax tëddee njaaxaanaay ma la mu ma tëdduma njaaxaanaay Macky Sall mii la am wallaahi mooy li am yenn xaste la nit ñi sa baay kii yàlla sa baay yaa ma def te muy dëgg ñu naan lan tëddee mooy ni yow ko dana xas te du njaaxaan naa gis nga Macky Sall mii président la du Sénégal kii la ñu àndal laa wax dooy caaxaan kon dama bëgg rek am na loo ay polémique la jaru ko kii li leen fi wax sànq du démb lu yàgg la te dañul tey di ko def sunu njaboot gi mu fi lim rek waaye war naa jar ñu ànd kii ñu ngi nii toog. te ku ci leen nag monsieur le président lu war lu rafetlu leen ñu ngi ko fiy def kon fi may tëjee di ñaan yàlla njaboot gaa ngi nii toog di génn njaboot nag tudd rek njabootu Seydina Limaamu am genn kilifa moom gii nga nuyu sànq mooy El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye mooy centre bi fi lay déparé fii loo fi gis fii lay génne lu ñëwit fii lay dugg moom la fi yàlla teg te yàlla naka fi yàlla yàggal na Cambérène nag monsieur le président danga nga fa def loo xamante ni ci mbaaxug yàlla danoo bëgg yow ci sa ci mbaaxu yàlla nga taxaw Cambérène du ay ay waxtu adduna sëpp xam ne yaa fi communauté laayeen bépp nag te mérité nga ñoom ñëpp nag ñu feete la taxaw la loolooy dëkk. doo yeesalal kër Seyna Issa ci boppam mii waajuru Sëriñ Ablaye mii ba noppi mel ni loolu amul ah kañ dafa am parce que nan deux ans nag. à part nga su ma neexee ma ni lii lii lii def naa fa deux ans ak gars yi parce que yow loo sumba te may gor kenn du koy yàq ma lay xool déedéet la la nga fay wax ka nag digg Cambérène ngay toog parce que yaa ngi def nag te loo fa mën a yëkkati ca kaw yaa fi def lii nun daal nit du fi rëdd ñu ne kenn waa ji rëddu fi ku di nga wax lu tax nga ni rëddu fi kon yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla defal teraanga ndam li nga xamante ni ñun moom la ñu soxla lool incha allah deux mille dix neuf premier tour yàlla na la e may yàlla majorité bu rëy rëy rëy allahumma salli ala sayyidina wa sallim amul kenn ku am problème ci suñu biir yàlla na nañu déggante nañu ak yëpp mais boo nekk fii di kilifa ngay sunu kilifa ñun ñëpp ak lu nit am doole doole Sénégal yaay kilifa am ñu nangu ko te ñoo la fi teg ñu ànd ci loolu dox ci loolu. personnellement ba may ànd ak yow di jël sama carte di ko joxe kenn fekkuma fa maa ko defal à titre individuel loolu seen kii maa ko indi ci yow 15 décembre 2009 may jël carte APR kenn yow yóbbu ma ba ñuy xamante tey mais loolu c'est individuel collectivité moo tax ñuy wax collectivité na ànd ak président wax que lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg ci luy defar te amul parparloo te xayrul kalaami ma qalla wa bi nu ubbee ci yàlla ñaan ko ndimbal loolu mu defal na ko ndax fii nu toog saal bii ñu nekk ci biti bu leen télé yi li xew fii ak ñu déglu kàddu yi dañ ko xam moo tax boo dee nit kuy dawal sa xalaat di nga bàyyi xel si ne ci saal lañ ko waxee waaye àddina gépp a koy déglu di la nuyu ci turu xalifa bi man damay wax ni yàgg yàgg naa la ko wax ba tey boo déparé pale ñëw yoof jàmmalaay péexam xel mu dal dina lu ëpp péexam cafeel dina lu ëpp péexam tedd nga dina lu ëpp ba ngay agsi fi ba nga fi dalee ñëw ba léegi mu soo fee dégg génn kàddu gu derange ndax yaroo ñu ñu ko itam du loo xam ne dafa bokk ci ñun bàyyi lay alayhi salaatu wasalaam borom oote bi bu waxee ne bu la nit dabee dog sa kurus nee na faral say per te dem nee na bu tegee tànkam ci per yi ne doo ko fa nee na bàyyi fa kurus gi utikat leneen xam nga kon kooku ditu jàmm la kii nga xam ne tey dañuy jéem fay ko bor rek te mënuñu ko muy sang bii fi toog nii dañu koy jéem lii ñu koy defal moo daf ko lebal ay baayam ba ñu gërëm ko lebal ka ay magam ba ñu gërëm ka yàlla faye ka mu toog ci seenub siis tey may ka ay rakk ak njaboot gu taxaw ci fay ka bar boobu sëñ Ablaye gërëm na ba gërëm ko ko defalu dara gor la goo xam ne gërëm na ba gërëm ko ko defalu dara léeg-léeg daan gërëm nit ñi xaw a kii mu ne nun lii lanu ñu xam yàlla lanu ñu yaakaar wallahi loolu la daan wax booy gëm-gëmal yàlla booy ragal ragalal yàlla booy óolu óolul yàlla booy yaakaar yaakaaral yàlla ak nangu dogal kër gi ndax li may faral di wax ni sëriñ bi bu mu laaj président lu ko fi indi président bu mu laaj sëriñ bi lu ko fi indi kenn ku ne la ne ci yow yàllaa ko dogal ci yow bu ku nekk nangoo dogal bi yàlla dogal ci sa moroom nag sunu ànd day neex bay lay bii bañ bu tudd fii jàmmalaay jàmmi yàlla fadxul naa jën daaruka daaru salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikraam muy àjjana mu ne fii laa ko bëgge mu ne uusikum an tajcalu baynakum almahabba fa inna ahla aljannati yatahabbuun maa ngi leen di digal na ngeen def seeni diggante ak cafeel ndax waa àjjana la ñuy bëggante wala tajcalu baynakum al adaawata wal baxda antum kuntum axwaanan bu leen noonoo bu leen xiiroo kon fii loo fi mën a yaakaar rek ne war nga ko fee mën a fekk lu dul ak cafeel ndigim mat nañu lu ñu doon ci Seydina Limam ndigimit roy nañu ci jëmm ji nekk fii ñu di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi dool li wéram te dinu ko ruse mais seedeel ne fii xale nag deretam dafa tàng wax naa ko sànq ma ne ki lay yar sax dina tollu jamono ya mu lay yar danga naan kii bëgguma waaye boo demee ba jur ni moom la nga ko defoon sa doom def la ko ci ngay xam li la sa baay bëggaloon lan la waaye nag bu amee sama maam da daan wax ne diina jax xale ya ak mag mu muus loolu mag mu muus a man lu la kon nag jàppal ne fii jàmm rek incha allah nga fay am gan nag la ci sama maam wax gan teral teraanga jooju di nga fi fekk ci comportement di ko fi fekk ci ay kaddu ak yéene itam daa wax naa fi ne boo sumbee sànce sa kër mën na jël ay at du yegg waa kii bëgg tabaxam réew nag doo ko may taamu tabax aayul wallaay aayul aayul aayul lii rekk la ndax kenn ku ne bu dee sëriñ donte ancien marabu amul it fa diw am na hmm? ku ne nag da ngay bëgg sa sëriñ gudd fan bu génnee àdduna ak cëriñam jeex na kële bu euh, la ko yàlla tuddoon ci moom nanguuram fa la yemit bu jeexee donte itam dese na bakkenam jeexal na foofu la yem ancien président de la république waaye nag ni la ko yéenee yow noonu nga yéene si sëriñ yàlla bàyyi ko fi guddal aw fanam ndax mu mën a doon sab ñag mën a doon sab sab sëñ Ablaye wax ne lu waay am la ca dàq mooy am kilifa kon nag ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne njaboot gi la Ablaye Diouf ngi ci kër gi amin jarbaat la si naa wax na ko kële dénkaaneem ba maa ngi koy fàttaliwaat doo wax ma ne lu ngeen ma mën a defal daal jàppale leen ma président Adja Maymuna eh, di nuyu ministre de l' intérieur lundi ñu ngi nekkoon ak moom ci liggéey bii nga xam ne moo jëm ci appel bi taxawaayam rafet si lool di nuyu njaboot gi yëpp waayoo fa ngële ca gannaaw saltige yaag ñoom ñëpp ñu ngi nii ci gannaaw ñu ngi leen di nuyu xamal ni yof gépp waaw Mamadou <laughs> Mohamed Sam ak su Njaay waaw ak kumbalaay mel sunu jarbaat njaboot gi yëpp a ngi fi ñu ngi lay gërëm di la sant te nga dalal sa xel rek olof dinay wax réeroo amul ñàkk a waxtaan am amul ñàkk a waxtaan am allah yàlla nu ko yàlla may nu toog déeyoo waxtaan lépp a teguwaat ci yoon te dara daraayewul nag ma xamal la loolu dara ñu ngi lay gërëm di la sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala amiin yaa rabbal aalamiin لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه قومها بك الأنبياء تتبع بك الأسور وتسمو